thank you Abdou Karim Gueye révélation bu rëy la def ci délégation bi nga xamante ne ni président de la république Macky Sall yónnee woon na ko ca diwaanu Touba ngir mu war a mën a jàkkaarloo ak ki nga xamante ni moo di xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké Abdou Karim Gueye gannaaw ba mu ñëwaatee ci manifestation yi nga xamante ne ni am na ci fan yi ju génn dikkaat ci discours ministre de l'intérieur bi di Antoine Diome ne li mu wax dara nekku ci dëgg Abdou a dox ci xelu sénégalais yi ñoo xamante ne ni bëgguñu réew mi dañuy jug nag ni ki démb ak barki démb du ñenn ñu dul jeunesse Sénégal ñoom ñi nga xam ne ñoo jaaroon ci gaal gi def ci alal gu takku dem ca bitim réew ngir bëgg a leen ci réew mi ñooñu ñoo jug ni ki démb ñi jug du ñenn ñu dul jeunesse bi nga xamante ne ni dañ leen privé seen droit de vote ci élection présidentielle yée ñu génn ba moom Macky mu faluwaat Abdou Karim ne ñi génn barki démb ak démb du ñenn ñu dul jeunesse bi nga xamante ne ni seen yaay ak seen bàyyi sonn nañu lool ci liggéey Macky Sall xañ leen ko ñoom seen jëmi bopp ñoom ndaw ñi lañu amoon kës néew di ko jariñoo ci liggéey Macky Sall privé na leen ko Abdou Karim Gueye di wax ne ñu ngi jox nag jeunesse su Sénégal bi yëpp rendez-vous le yëpp seede nañu ne jeunesse su Sénégal bi nekkul jeunesse boo xamante ne nii dañuy dëkkee di def violence kon bu ñu demee ba koy def ci fan yi ñu génn mooy dañoo sës jàkkaarloog nguur goo xam ne yëgul sax lii askan bi di dund président de la république boo xamante ne nii ay doomi dëkkam ñu ngi dee mu jàkkaarloog ñoom te lijjantiwu leen sax yëgalu ko sax yaramam amul benn kàddu gu mu yëkkati depuis ñeent fan yoo xamante ne nii xale yaa ngi dee ci mbedd bi foo romb saxaar seeg tàkk-tàkk yi di jax-jax yi Abdou Karim Gueye ne lii mooy wane ne Macky Sall lijjantiwul sax jeunesse su Sénégal lijjantiwul doomi Sénégal yi lijjantiwul bëgg-bëgg askan bi fi mu toll nii nag combat bi nekkatul combat Ousmane Sonko waaye moom ci boppam la bëgg mu jugee ca palais ba ndaxte ku ñu yëgul ñun ñu yëg suñu bopp Abdou Karim Gueye di ne manifestation bii ñu bëgg a def le huit ñu jëm dul lenn lu dul Macky Sall miy ca palais ba démissionné bu ñu encadré nag ñoom takki der yi su boobaa ñun ñoo yónnee woon na ko ca Touba ngir mu war a jàkkaarloo xalif général des mourides xalif bi dafa santaane nañ bu ñu yegg nañu delluwaat fa ñu jugee woon ndaxte ba ma ko conseillé santu ko mu dellu ginnaaw ci coow li nga xamante ni moo am ci réew mi Macky dafa dëgër bopp taxaw fa mu taxaw ne du ci dellu ginnaaw lii la Abdou Karim Gueye xamle ci point de presse bi nga xamante ne nii activistes yi société civile opposition bi amaloon nañ ko ngi altine bi ca place de l'obélisque Abdou Karim te pour ñuy dee te li ko waral du lenn Macky moo santaane takk der yi génn ci mbedd bi ku génn ñu jëflante ak yow kon nag ku fi dee rek Macky Sall moo yor responsabilité bi Abdou Karim Gueye di xamal jeunesse su Sénégal yépp ne nag bés bi jot na le 8 mars bii ñu jëm manifestation boo xam ne mene mooy raw ajuma bi ñu génn Macky dana génn réew mi wala ñu jëflante moom te di lancer message alkaati yi ñu xam ne ñun ak yéen ay frère lañu bu leen kenn dugal ci couche ba ndax yéen a ngi nii da ngeen di liggéey suba ngoon guddeeg bëccëg mburu sax duñu leen ko jox wobalaak ndox mu sedd et pourtant seen liggéey moo gën tar ñoom seen liggéey kon nag ñëw leen ngeen encadré ñu ñu def suñu marche pacifiquement lu ko mooy rek lu fa xew rek responsabilité bi lépp mu ngi tegu ci bopp Macky la nguuram mbokk yi di abonné ko xel seen chaîne YouTube bi d'Enquête 221 li gën fës ci actualité bi nañ ci del soit ci kanam tuuti